waa tey dama ñëwoon ci poste santé bi pour euh, daje comité de santé bi am aussi li ma yóbbaale muy ay équipement yoo xam ne pour yokk ko poste de santé bi pour yokk li fi nekk ci poste de santé bi équipement yooyu nag euh, nekk équipement yi nga xam ne mën na dem ci maternité yi c'est-à-dire jigéen ñi fu ñuy muccee ak yenn yi mën a dem ci poste de santé donc loolu tamit ñu wax ne ñu ngi ko def ci poste de santé Ndiaraw def nañ ko ci poste de santé de Fissel def nañ ko ci poste santé bu Mbaafay nga xam ne day waaj a pare def nañ ci am luñ ci def ci case de santé Gitir te incha allah bëgg nañ def ci poste de santé de gelo donc équipement yooyu pour yokk li fi nekk la donc ci loolu tamit euh, bu weesoo loolu ñu ngi euh, ñu ngi doon yëngatu aussi pour xool nu ñuy améliorer carte sanitaire bi ci gox bi ba tax na ministre de la santé prévoir ñu tabaxal ñu benn maternité bu bees à Ndiaraw toujours pour euh, renforcer en tout cas le la carte sanitaire ci commune bi. Euh, maternité boo xam ne dina am logement sage-femme bu weesoo loolu tamit ñu ngi euh, xaar ci ministre de la santé muy jàppale ñu ci ambulance donc ci wàllu santé loolu lañu fi waxtaanee tey di wax ne aussi euh, ndaje bi dafay may permettre ma rappeler waat encore liggéey bu bëri bi nga xam ne président def ko def ci wàllu santé muy tabax ay hôpitaux depuis bu mu fi nekkee am na yu ñu yegli waaye am na lu ñu commencé ba réceptionné lu toll ne cinq hôpital léegi nii ñu ngi nekk di tabax quatre hôpitaux yoo xam ne 2020 dina pare muy hôpital Touba Kaffrine Sédhiou ak Kédougou Kédougou nga xam ne mosul am hôpital te nekk région tey ndax président Macky Sall dina am hôpital. centre de santé yi mën nañ ne 2012 ak léegi tabax nañ ci lu mat 17 te poste de santé chaque année dans le yi maanaam ci xaalisu keesu état da ciy génne lu mat 15 di ko jox collectivité territoriale yi bi wax ne dans le PUTC ak PUMA ak programme état bi.

président def na ci lu bëree bëri mën nañu wax hôpital dantek San Taliba Dabo bëri na buñ ko limee tam duñ fi jóg di wax ne aussi en matière d'équipement imagerie médicale tout scanner ak yépp def na ci lu bëri di wax ne aussi euh, équipement yu important ci yu ñu am aussi bokk na ci équipement radiographie yi nga xam ne président def ko euh, out aussi mu doon ay jumtuwaay lu yi nga xam ne dafa nekk de dernière génération donc lu bëree bëri daal def nañ ko ci santé équipement ak construction di wax aussi subvention yi ak gratuité yi bëri na ndax xale bu juddoo ba am 5 ans président nee na mën nañ fajuto du fay mën nañ ko consulter faj ko jox ko garab te du fay waaye dañu bëgg lool ñu gën koo dëgëral parce que yenn saa yi ñu consulter nit wax ko demal jënd ordonnance te fekk ne président dafa bëgg ñu gën jàppale xale yi mag yi ab tamit yu am 60 ans mën nañu faju sans fay bu passé loolu ñi nga xam ne dañu nekk en 5 ans 5 et 60 ans couverture maladie universelle dina leen jël en charge nga xam ne 3500 ngay cotiser at bi yëpp booy faju 20 pour cent ngay fay maanaam bu doon téeméer ñaar fukk ngay fay li ci des état bi moo koy fay muy ci consultation ak garab bu paasee loolu état bi ne léegi jigéen mu nga xam ne day mucc ñu ko war ko opérer césarienne dafa gratuit état bi ne dialyse mooy ñi nga xam ne dañuy feebar ñu bëgg raxas seen deret état bi ne dafa gratuit jigéen ñi nga xam ne dañu am feebar boo xam ne seen butit njurukaay dafa am feebar boo xam ne faj bi dafa metti ñu koy tuddee semi chimiothérapie loolu tam dafa gratuit donc yooyu yëpp président mu ngi koy def euh, di ko yombaleel nit yi sans compter que ñi am euh, bourse familiale dañ leen di dugal ci semi bi pour yombaleen leen faj donc di wax ne président lu mu def ci secteur de la santé bëri na lool naam xam nañ ne am na lu des mais yoon bu ñu jël nii président jël dëpp bu mu ñëwee bu ñu ko continuer d'ici balaa muy pare son mandat vraiment xamna système de santé bi dina émergent comme nim ko bëggee. remercier président Macky Sall nga xamné ne ñu ko défal parce que yoon bi buñ ko tra buñ ko tracé tout ko route classée yàgg na boobu sax est-ce que ñun ñi judogum nañ mais tay tok nañ ba gis né yoon bi ñu koy défar ak nguur président Macky Sall dañ ciy content di ko remercier bu baaxa baax vraiment di ci content, ci turu population bi parce que yoon bi dafay ubbi njagañaaw ci Fissel nga xamné moy suñu chef lieu d'arrondissement donc dañ fay ut dem ay réunion di ut ay kayit tax yooyu di ñu ubbi ci taset nga xam ne c'est une zone boo xam ne dafa am marché hebdomadaire am ay mbéyum légumes yu bëri donc nit yi léegi pour relier ñaaw ak taset vraiment ak Fissel day yomb si ñoom donc ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax di waxaat aussi yoon bi nga xam ne vraiment ñu ngi koy xaar boobu tam léegi mu démarré incha allah yoon bi jógee Sandiara dem Ndiaganiao donc euh, ñu ngi koy xaar ci ay fan donc mën nañu wax ne ci président Macky Sall quand même Ndiaganiao dina désenclavé inshallah inshallah allah. bi pour indi ko yàggoon mais elle attendait des équipements supplémentaires pour nous l'apporter tay lolu day renforcer euh, plateau technique plateau technique maternité Ndiaganiao euh, te ku xamone maternité Ndiaganiao moom moo doon le parent pauvre de du poste de santé aujourd'hui y a eu des améliorations day ñëw tay renforcer plateau technique bobu donc euh, loolu dañ ko siy gërëm di ko sant parce que yaakaar naa ni bu fekkoon ni doomu njagañaaw bu si nekk ku nekk fa nga nekk boo amee capacité wala ay possibilité waxuñu la nga jël sa poche joxe mais boo amee sa ay possibilité yoo xam ne mën nga ñëw tey indil loo xam ni askan bi la je pense que bu ko kenn ku nekk doon doon doxalee noonu tey dinañu am satisfaction yenn jafe-jafe yu bari tey askan bi doon dina ko fàtte.